Carla. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biir ci bitim réew ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo yaak ziar yëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di a baax eh, maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp di leen nuyoo fii nag ci Mbàkke ci kër Serigne Cheikh jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla suñu borom doole ko fa yàggal xam ngeen ne tey ci bis bu màgg bii muy benn fanu koor eh, di kumte bu njëkk ñu ñëw fii ci kër Serigne Cheikh jëmm fas yéene ànd ak moom liggéey mam ju bax ja maam Cheikh ibrahim Fall Bali Mouridina mom la ko Serigne Touba sasoon mag ñi waxon nañu bu yag ci njaareem ne bi mam Cheikh ibrahim Fall ñibi sen njaareem 1915 am ñu ne 1916 ci la ko Serigne Touba Cheikhul Khadim wolu ci njaareem nako damay séntu gan te bëggon nga gàttandoo ma len te teralal ma len cheikhul Fall mi dégg Serigne bi na serigne sëñ kat wëru ko la wax yaram bay mën Fall mu ne ko ku bax ci lu mu wax mu ne ko nee na day séntu gan te bëgg nga gàttandoo ko te teral ko ko mu serigne sëñ bamba day wëru ko la may sante daa wëru ko la may sante daa wax ne ku ma ci jox lu tollu ku ma ci wax lu toll nag Cheikh Rafal wax ne ku ma ci jox lu toll ni tànk ma fàggul la ci lu dut yàqu te boo ma dugal la àjjana loolu mooy li nga xamante ne bii loolu li nga xamante ne bii la njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall sasoo te itam ñi ngi fàttali ne su nekk ne liggéey boobu bi nga xam suñu borom dogal na Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina sasoo woon ko tàmbale woon na ko ci fukki ndab ak ñaar ci li ñu taarix nettali ci boole super loolu ñu ko daan toggee ci biir kër gi ci njaareem wax nañ ne waañ wa ca lañ ko beraloon daan togge super bi waañ woowu Baye Cheikh Talgalo bokk na ci mag ña ko daan togg ak ñeneen ci ay mag bi yàlla dogale nag maam Cheikh Ibrahima Fall dem eh, bàyyee liggéey boobu ak Cheikh Moudou Moustapha Fall mooy xalifaam premier xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall wut na ko ñaar fukki at wéyal liggéey boobu ci diiru ñaar fukki at yi nga xam ne ci la nekk maam Cheikh Ibrahima Fall waaye bi yàlla dogalee tam sëñ Moudou Moustapha Fall jóge fi xam ngeen 1953 ba 1975 wéyal liggéey ba mu fi euh, Fall Serif Assane wéyal liggéey bi ci juróomi at muy 80 ba 84 waaye bi mu fi jógee itam sans borom dogal itam sëñ Abdou Sakkour Fall wuutu ci Cheikh Serif Assane wéyal liggéey bi ci ñeenti at ñu ci jógee sëriñ Modou Aminta Fall jël liggéey bi wéyal ko ci ñaar fukki ak yu topp ndax xam ngeen ne 84 ba ba 2006 waaye gannaaw sëñ Modou Aminta sëriñ Cheikh Jëm mi ñaan suñu borom dool ko fa yàggal te wéral ko mu wéyal liggéey bi ba tey ji tey gis nga moo ko yor di ko doxal eh, te bay te fañ ko fam ko fam ko jëlee nag ci Cheikh Modou Falilou Fall ku ne xam na ne ko yokk te li mu jëm mooy ku yokkut yaa wàññi ñu ngi ñaan yàlla sama borom yàgg ko fi ko baax a baax waaye xam ngeen ne itam gis ngeen camion yi nii mu demee xam ngeen ne par ñaar dañ koy xaaj ci digg bi lenn li day dem njaarim lenn li dem ci Serigne Cheikh jëmbu ndax njaarim taarix bi mooy fulku bi naka jekk dafa am lim bu fa daan dem Baye Fall yaa ngi nii di waajal ngir yóbbu ko waaye am lim boo xam ne itam day dem ci eh, Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Amadou Bachir loolu itam ñu koy waajal bu baax a baax ni daal lañ ko fas ci benn fanu koor ci tey ba fanweeri fan insha allah danañ ànd ak mbokki taalibe yëpp saa bu ngoon jotee teew fii ci kër Serigne Cheikh Jëmb dajale mboolem li fi nekk ci gàtt yi ci nag yi ci ganaar yi togg ko yóbbul ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim eh, te mooy ndigal li nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko fi bàyyi woon kon daal noo ngi sant baax tey gërëm sëñ Cheikh jëmm nag ànd ko mboolem njaboot bi yëpp itam di siyaat baax Serigne Bassirou Fall Alxuraan moom Serigne Mbacke Fall Khady du doom sëriñ Mbacke Fall waaye taxaw sëriñ Cheikh Jëmb ci liggéey bi ziar bu baax a baax itam sëriñ Cheikh Ngunda Fall moom itam di doomi sëriñ Ngunda mu Cheikh Ngunda Fall taxaw sëriñ Cheikh Jëmb ci liggéey bi ziar bu baax a baax sëriñ Talla Ablaye mu sëriñ Ablaye Fall Ndar moom itam doomi sëriñ Ablaye Ndar jiite kër sëriñ Mourab ko sëriñ Ablaye Ndar tey taxaw sëriñ Cheikh Jëmb ci liggéey bi waaye sëriñ Cheikh Bintou Fall moom sëriñ Mourab Lay moom itam ànd ak sëriñ Cheikh Jëmb ci liggéey ña ko toppoon ca Ndand ña ko toppoon ca Tasineer ña ko toppoon ca Njaaréem ña ko topp Thiès ñëpp àndandoo ak Serigne Cheikh Jëmm di wéyal liggéey bi ak mboolem seex yi ak mboolem taalib yëpp di ñaan yàlla mu yàgg te sax bakay jerejeuf Serigne Cheikh sambo sunu cameraman diko jajeufal jaajëfal baax baax ci liguey bi mu mel legui rek lañuy wàcc sunu cadeau dajje sunu Baye Baye Serigne ci la Baye fal Baye Serigne ñëw tay ci kumte première jour koor gi ci comité bi fi ci keur Serigne Cheikh dem Fall khalifa mam Cheikh ibrahim Fall mom nak ko gis xamne ku gëm mam Cheikh ibrahim Fall te duggu dund bayam seyf lay sil la wax nañu ne ci mag ñi nga xamne ñom lañu jëk njëkk seyf lay Ablaye Fall Ndar la bokku mu di Baye Fall yaakaar Cheikh ibrahim Fall dund ak Serigne Modou Aminta Fall Baye Serigne lan nga ñuy wax tay ji mel Cheikh ibrahim Fall amate na ndam na ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sëriñ Touba sant gu toll ni sant gi ma sant sunu borom maa ngi jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall di la xamal ni sëñ Mamoun li xew tey jii lu ne xew na fi waaye tey jii moom li xew mën naa ni mësta xew sama te ju ne gàcceel na sama démb nag mën naa ni moo feeñ ci tey jii ah, maa ngi nuyu Serigne Cheikh mi ci biir ak rakam yu baax yi ko jige lool te fi wetam. maa ngi nuyu sëñ Fallou Fallum sëñ Modou Aminta Fall di saare sëñ Cheikh Ndigal Fall mais fa Touba euh, boo boo fa demee li nekk fii loolu la fa nekkee bu yenoo jëm Daaru Xuddoos ndax baayam sëñ mu saa Fall moo ko boole woon ak Gaynde Fatma mu taxaw baayam taxawin woo xamante ni moom sëriñ Cheikh rek sëñ fallu ñu bokk sëñ mu Moussa Fall sëñ Cheikh Fall baayam góor bokk ak mu Modou Aminta Fall benn bàyyi ñuy ñaari jàmbaar yoo xam ni koo fi toog ci wetam rek te xam dëgg li nga xam ni kii li mu yenu mag ko ko ñu ngi lay siyaare yooyu tam bu baax di nuyu Serigne Alioune Thioune di ñaan sunu borom télé bi nga xam ne da koo duppee maam Cheikh Ibrahima Fall te ndigal rek tax koo jóg fa ab télé di yegg yàlla na ko weesu. di la xam ne Serigne Cheikh jëmm mii nag kéemaan daa feeñ ci moom ndax Serigne Modou Fall Fall mi mu donn danoo defoon ni bu joxee lenge yi comme ko jox da ngay àgg suuf tëral lenge yi Serigne Cheikh jëmm yëkkatee lenge yi noo xam ni kenn mës ko dee yëkkatee loolu nag ku ci xoolul maam Cheikh dina la jaaxal waaye ku delo ci mam Cheikh xamni fu seigne Bamba dem da ko fa wara fek lolou dula du la jaaxal sëñ Cheikh jëm dal wax deug yalla ku di mourid te deugal xam nga li mu yor mam Cheikh ko ko jox te nim ko ko joxe mi ngi koy defé non ci yoon wi ma ngi siyaay sëñ Amdi khadi jambar gi nga xamni moy rakam top ci mom te jëfum toll ni jëfi xalifa te àggagul ci doon khalifa dila xamal ni la télé bi kep kuy bay fall sa yitte ak sa dox ak sa bëgg ak sa keetaan lépp war naa jëm ci Lamp Fall ndax sëñ Tuubaa rek kay yitteem sëñ Tuubaa rek mooy suñu yitte koo bokkal ay yitte nag war ngeen a mën a jokkalante fenn fu ma mas maam Seex yóbbu ma fa tasiwu ma fa yow yow mii nga ànd ak Alioune Badara Ndim ñëw di saytu mbiru maam Cheikh Rafal ngir tasaare ko ndaw ñu dul maam Cheikh ngir ñu dem ci sëñ Bamba loolu mëstaam kon boo dajee ak man laaj ma euh, samay kàddu dinaa ci sawar lool ndax jamono jii ku liggéeyul sëñ Touba doo am li nga bëgg jaamu yàlla lu baax la waaye jafe na ndaw ñëwee te sëñ Touba bi mu ñëwee fekk na fi jaamu yàlla fekk na fi sunna fekk na fi lislaam wala bi xidmatin la wax aw bi hubbin aw hadiyati ku ma liggéeyal dem àjjana ku ma sopp dem àjjana ku ma jox sa wërsëg dem àjjana Cheikh Fall woote xidma kon moo bëgg a jaam ñi lii nag lii fi daje xam nga ne aw ñaq rek ko man ak xol bu laab ak yéene ga ànd ak dox Cheikh Ibra Fall dafa wax ni ñëpp te kenn du ma dab ñu ko yan yett bu ni tudd yalla li gënal li gën sëñ bamba togu ñam joxe yett yoy nak ku ko jàppoo di nga dem ndax ba goor ñu wéni ko dan maaroon te maa bëgg dabé da ko wax ni ko bindal dabe mu bind mun ko bindal ndap mu bind mun ko dabé ndap su la góor ñëwee nga bëgg neena jot da ngay togu joxe li dugg fi war gën dem ci sëñ muntaha mu jox ko bindé fi lolu ko xol xamni Cheikh Fall mo dogu yoon yalla na waa ak dox lu yàgg ba socc moom ta buñ ko génn fenn ci dara ji yonent bi barke sëñ Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Cheikh Jëmb sëñ maamu ñu ngi sant bu baax. Ah, moom koor gi moom moo ñu yëkkati moo ñu tax ñëw andi addiye bi nga xam ne moo moom lañ jëlee Amérique ñëw andi ko fii Touba ànd ko sëñ Mouhamed Diop jébbale ko sëriñ bi wante tamit diw ah, sant ah, mbokku taaliba yi ci Amérique yëpp boole koog waa Touba Philadelphie. si liggéey bi nga xam ne moom la ñuy wàccaay te jàpp bés bi bés bi nekk euh, ren la 14 septembre di waajal bés bi di euh, ñaan ñëpp rek jàppale ñu si comme niñ ko daan defee rek di ko defee daa moom sëñ Abo ñëwoon na mbir mi amoon na solo ñu dajale woon si juróom benn million ak genn wàll yóbbul ko sëñ Cheikh Jëmb ren tam ñu fas yéene dajale juróom-ñaari million jox ko joxaat ko sëñ Cheikh Jëmb wante di si woo ñëpp Amérique gépp képp muy Sénégal ak ñëpp ñëpp daal tàbbi si xam ne liggéey bi moom du suñu liggéey ñun ñëpp ñun kese liggéey bi ñun ñëpp ko bokk daal di ñaan di sant ñëpp képp ku taxaw muy jàngkat yeeg liggéeykat yeeg ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram gu wër ba ñu taxaw si liggéey bi suñu maamu yéeneen waa Lampal ñu leen di ñaanal ngeen moom ñëw mën a ñëw teewee ko jàpp si liggéey bi parce que toujours ngeen jàpp si liggéey bi liggéey bi nag moom ci million la tàmbale woon ba tey ñu ngi si juróom-ñaari million kon boog loolu sant yàlla moom ñu ngi ñaan ñëpp jàpp si liggéey bi jërëjëf sëñ Mamour moom daal loolu rek moom kaddu yi xeeb nañ ko mënuñoo kii wante yow nga egg li rek di nga xam ne ngi bàyyikoo ci Serigne Cheikh jëmm di tàbb ci mboolem taalibe yi ci àddina bi yëpp mhm. muy lu jëm ci liggéeyam Serigne euh, euh, euh, liggéey bi rek sëñ bi moom loolu la santaane moom daal nee liggéey bi daal ñun ñëpp daal nañ ko bokk di ko yëkkanditoo di ko tegandoo

wa bes bi nak mom mom mom addiyee ko tax jog mom mom mom no saxu ñoo jog addiyee dal mo ñu tax jog dañoo bëgg nak ñepp japp ci addiyee bi ta xamne lu ci way duggal defalo ko kenn defalo ko Amadou defalo ko kenn sa ko defal te lu fa rouss ñu andil ko Cheikh wa liggéey gaangi ok eh, jërëjëf eh, jërëjëf sëñ Amadou Mbengue jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Fallou Ndoye mi ngi jàkkaarloo ci site cheikhourfall.com eh, ak mboolem mbokk ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp di fàttali ne rek bis boobu mooy bisu Philadelphie bi nga xam ni wax na ko li tax ñu sos ko mooy addiya lañ fay waajal waajal xam ngeen na daaw rek juróomi million ak lu topp ren ñu ngi waajal juróom benn million ngir indi ko juróom-ñaari million ngir ko Serigne Cheikh Jëmmu Fall kon nag di ci soññu mbokki taali bi yëpp tey ñaan yàlla ñu yegg ceeg kilifa di sant seen Cheikh Jëm Fall bu baax di sant dañuy sant maam Cheikh Ibrahima Fall di sant seen Cheikh Jëm Fall di sant soxna Oumy Fall sant suñu sëriñ yi ñu fi indi nag yi nu mën a toog bay liggéeyal Cheikh seex Jëm Fall ci sunu ndigal sëriñ la dikk ndax buñ ñu bàyyi woon ca la nekkoon kat duñ fi ñëw bay seex yi ba ñu ciy sant bu baax nag di sant soxna Oumy Fall moom waa ñu weet nag te jéem cee xam dara jéem cee bëgg xam dara soxna Oumy Fall mo Cheikh Jëmb fa ñoo yem képp ndax ño bokk seen mam Cheikh ibrahim fa soxna mi ci cinam gi dina togg ñaari boli ginaar ak tino sup sup bi ak ginaar gi ma nga jëm ci señ sëñ ba benn bol bi ma nga jëm njaareem ñuy rafetlu liggey bi lool nak di sant sëñ Cheikh Jëmb fa di sant soxna mi fa di sant sun sëriñ ñu fi indi ndax liggéeyal Cheikh Ibra dafa jafe bay liggéeyal lu jëm ca yoonu sëñ Touba liggéey bi nag rafetlu nan ko ndax bu nu xëyee dinañ togg ñeent fukki ginaar bool bu ne dañ ci togg ñaar fukki ginaar ak pombiteer ak sobleem dinañ ñaari xar def ko sup ba mu jeex ñu tool bu doon liggéeyu tubaab la ñu ñuy fay yeboo ñu ne wàcc nañ li doon liggéey liggéey bi sunu bénéfice la ñoo ko moom ñun nag dañ fee nekk takkaayu rek di bëgg Cheikh Ibra ndax bëgg Cheikh Ibra gi moy liggéey bi moo fi indi ndax ñi nga joggé Ndakaaru ñi nga joggé Kaolack ñi nga joggé ndiaré kenn dëkk fi ñun ñëpp dañ fay ñëw tassasi rek bu ñu ci bénn néeg lañuy dëkk ba suñu ñibbi jor ñi ñibbi kon nak lepp ci bëgg Cheikh Ibra ak bëgg sen soxno mi faal ak bëgg sen Cheikh Jëmm faal mi rafetlu nañ ko nak di sant lool ndax li ñu santee moy Cheikh Ibra dañoo boole ci bopam ba tax ñu liggéey fii ndax liggéey Cheikh Ibra kat du ku jot liggéeyal ko kon nag dañ koy sant yàlla di ko sant ñëpp di sant nag it ñu ne ci waañ wi ndax waañ wi ñun ak waa Njare Njaay ñoo ko bokk waa Njare Njaay sëñ bi ba mu ñëwee dañ koo jébbal soxna mi ñoo bokk waañ wi biñ ko bokkee mu rafet lool nag liggéey bi rafet lool liñ koy liggéey rafet lool yàlla dafa def nag tax fekku leen leen fi danga leen fekk ñu dem seen kër sëriñ siyaare ji ñun ngeen fi fekk ñun waa kër sëñ Seex Jëmb Faal ñu ngi rafetlu nag di ñaan sëñ bi yàgg fi lool te wér di ñaan soxna mu Fall fi jiite yàgg fi lool te wér di ñaan taalibe ci ginnaaw yàgg fi lool te wér ñi ñaan yàllaat yàlla ma ñu xeewal goo xamante ni buñ fi ñëwee dañuy def li war lépp ndax kat ñun ay Baye seex gi gis nañ ci sunu bopp gis nañ ci sunu bopp ci lépp ndax xéewal yi yokk na yëpp baawaan na te boo fi liggéeyee boo jóge fi da xam ne liggéeyal nga Cheikh Ibra li ngay liggéey boo fi jógee bo ñibé fa nga dëkk da nga xamné ne liggéeyal nga Cheikh Ibra kon ñu sant Cheikh Ibra Fall bu baax di leen sant nak yéen it bu baax ndax li ngeen di def rafet la lool rafetlu nañ ko nak ndax mouride yépp dal contane nañ tubaar fakkaala la ñuy wax dal mouride yépp contane nañ guddi talata dal bu nit ñi togué ci télé yi ñepp seen xol sedd na ko kon ñu ni ñaanal yalla yéen it ngeen yag fi lool te do ba radio yu doon ay radio radio radio bu keroogee kat kon ñun mouride di dinañ xamné la bàyyi laat waxoon dikkal nañu jërëjëf jërë ngeen jëf rafetlu nañ ko di ñaan yàlla nag suñu kilifa yi yàgg fi loolu te wér barke sëñ Tuubaa jëf ñu dem euh, jërë yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ñu doon topp boobaak léegi xam ngeen ne Eh, ñu ngi nekk egsi nañ fii ci kër Serigne eh, Mountakha Mbacké moom Cheikh eh, fii ci jumaa ji ci résidence bi nga xamante ni fi baaxoo indi ndog yi waaye fekk fi jëwrinam yu baax yi Serigne Cheikh Mbacké Abdou Latif nga xam ne ñoom liggéey bi ñu fekk fii tam mboolem ndog yi njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall daje nañ fekk waa kër Serigne Cheikh Fall Mbor daje Gadd Fall ak mboolem murid yëpp maam Cheikh Lo ñu daje fii nag tey ñëw daaw daje woon nañ fi dajawaat fi yàlla nañ fi dajawaat déwén la ban yëg-yëg nga am ci liggéey bu tedd bi nga xam ne euh, Serigne Cheikh Jëmb togg na ko ànd ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall muy ndog yi indil ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. sëñ Mamoun jërë ngeen ñu ngi sant yàlla di jëlu jonto bi di ñaan Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi Serigne Cheikh Fall Jëmb mu yàgg fi am nañ mbégte lool ci rek ndaje fii sëñ Mamoun Ndaw ku yokkul yaa yi fii ku fi ñëw rek yëg-yëg moo la fi indi ndax weer wi weeru Cheikh Fall la ndax ni nga ko waxee rek Serigne Touba ci boom dama séentu ay gan daa ma toogal ma neen ay reer ndaw li genn to yaram bay moko ko faral mamane maam nee ndox bi dal ma tank wala bin ta tombe kef tat daro mu ne ko yaaram ndox tank ma dafa loxo ci am nga yoolu weeru koor ñun nak ñu bokk ndar lañ bokk ndal fa lañ bokk Serigne Talla Niang mooy jëriñu ci Cheikh wal jëmb Serigne Talla ñang moy bayam Serigne Talla ñu moo yor diw gi nak diw gi ñëral manam yo xewal Serigne Talla moko yor man ma man may wuri ko laaj kaolax ndakaru ba Tamba ba Ndar ci nak maam nag diine mooy lii jula góor jàmm ak jigéen la waaw loo xam ne nag yaa ngi dégg boo ko jàppee ak fa nga a dem kon ñu ngi ñaan suñu baax Cheikh Ibra ñu koy déwén déwén nag sama dama defal ci kattan ak wér ñoo ngi bëgg lool lool lool waa Ndar Fall ñëw nañu waa Mbawar ñëw nañu waa Ñaar Fall ñëw nañu waa Kawsar nag yaakaar naa ko xool tey talaata ba suba alxames ajjuma ku dem Njaareem di nga yéem loolu Cheikh Fall kon jërëjëf Cheikh yow rek maam Cheikh Fall euh, jërëjëf maam Cheikh Lo mel na ne yow koo laal mun ku la laal niin yaa ngi ci diw gi loolu <laughs> tubaarkàlla alhamdulilah santaan nañ bu baax a baax di ñaan yàlla sunu borom euh, doon li ñoo jàppale waat euh, ba tey ñoo ngi taxaw ak ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bokk ci sët yi ba leen nii xam na tekkiwuñ seen laxasaay saa su nekk ñu ngi ci waar yi mooy Serigne Cheikh Khady Gueye moom Serigne siidi faal moom Serigne Modou Sa Fall Serigne Abdoulahat Fall moom Serigne Cheikh Sundiaye moom Serigne Modou Sa Fall ñu ñëw nag ànd ak Serigne liggéey bu tedd bi nga xam ne Serigne Cheikh jëmb muy seen wayjur indi na ko fii muy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ban yëg-yëg la ci sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye am. jërëjëf sëñ Mamoun auzu billahi mina saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim tawil lana amrana sahil lana badana wa hablana rusda wa tawfiq yàllaahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax sëñ Mamoun niñ ko yëgee rek mooy niñ koy defee dañuy wax ne la mu saf ka ko macca ko te Cheikh Ibrahima Fall yëg-yëg la dañuy ñaanal kii ko fi nekkal di Serigne Cheikh Jëmb Fall suñ borom yàggal ko fi te may ko wér la tax sëñ Touba wax Cheikh Ibra Fall ne ko damay séentu gan bëgg su ñëwee nga teralal ma gan tertul ma ko te teralal ma ko moo waral lii kon képp koo xam ne gis nga ab Baye Fall muy togg ndogu na nga xam ne jékkuñ jékki rek di togg ndogu dafa am fuñ ko jëlee foo xam ne ci ndigalul sëriñ Touba la Cheikh Fall daa ko ko defal comme ni nga ko baaxoo di waxee at mu jot li ci ëpp solo nag ni ko sëriñ bi defee rek moo am solo damay wax ne suñ Cheikh jëmb ni muy defee ndox yi kenn ku ne war nga cee yëg sa bopp ndax daa am fu ko fekkoon jëlee ko fa yóbbu ko fu sori bëggatut ku ci togg ay ceeb la waxoon bëggatut ku ci togg lenn lu dul maanaam nu mu gën a taw féexee taw feex jooju nag la ca Cheikh Ibrahima Fall gisoon ba tax mu ne ndox yi ku ma ci jox lu toll ni tànk ma gàddu la tiyaar yi adduna ak alaxira loolee mooy gis-gis bi nga xam ne moom lañ ci am ñun tey ñaan nag bépp Baay Faal boo xam ne yaa ngi seetaan tey déglu tey jëfee ndigal nga dimbali ñu ci niñ koy defee nga koy defee noonu Baay Faal wër ta taqal Baay Faal wër def loo xam ne ku ko xool da ko cay gis ci loo xam ne wëru ko caa gis lépp loo xam ne daal ñi ngi ko ciy def wala nga bëgg koo xam ñëwal ba ci kër Sëñ Cheikh Jëmb di gis niñ koy defee di nga gis niñ koy doxalee nag mooy ndigalul sëriñ bi jóge woon ci moom jëm ci Cheikh Ibra tey jii ak njabootam nekkal ko fi sëriñ Cheikh jëmbut bay ci waaru am solo ndax yaakaar naa ne am na année boo xam ne maanaam lii tund wi jënd nañ ci ginaar ba amatuñ sax fu maanaam foo maanaam maanaam fu ginaar nekk loolee nag dañuy wax ne la tax mu ne bëggatuma ceeb nañ koy def ni mu ko bëggee loolee mooy yëg-yëg bi ma ci am man damay xam ne jële am na fu mu ko jëlee am fu mu ko yóbbu nañ ko ñaanal suñ maamun suñ borom doole ko defal tawféex te ñaanal ko mu yàgg fa lool te wér te di leen sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci di doxal loo xam ne lépp ci loo xam ne ku ko gis rek naw ci Cheikh Ibra ku ko ku ko dégg rek gën cee amaat pas-pas ndax gis nañ la ni ngay doxalee ci bis bi gis nañ la ni ngay ni ngay intéresser nit ñi ngir leeral li nga xam ne moom la patrimoine bi fi Cheikh Ibrahima Fall bàyyi rawatina ndogu yi di la sant di la gërëm bu baax a baax suñ suñu Abdoulaye Fall moom it suñu xarita mu sax alhamdulilah tubaarkàlla euh, jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Cheikh Fall Khady Gueye moom sëñ Sidi moom sëñ Mourou Moustapha Fall bàyyi ko ba Thiès jërëjëf Cheikh Abdoulaye Fall moom Serigne Sassou Ndiaye moom Serigne Modou Moustapha Fall santaan nañ baax mbooleem mbokk yi ñu doon topp ci biiram ak ci bitim réew jaajëfalaat bu baax a baax jëwriñ Serigne Aline Thioune suñu borom ñaanal ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi loolu te wér ak ci liggéey bu tedd bi mu jitee eh, ziar bu baax a baax Serigne Fallou Fall moom Serigne Aliou Fall ci liggéey bu tedd bi nga xam ne moom la jitee ci cheikhrofall.com jaajëfal baax mbooleem àddina bi yëpp fi ñu waaye doon toppe rek di leen i ndogu ci keneen ci ci beneen buntu kër ci buntu